yeex lool kon mi ngi noonu topp ci ginnaaw auto presse bi ah, moom mi nga xam ni moom mooy Cheikh Bara Ndiaye borom de bis waaye Cheikh Bara Ndiaye bon enfin en wax naa la sànq la demande a été depuis tout à l'heure nit ñi di demander ana Cheikh Bara Ndiaye ana Cheikh Bara Ndiaye mais finalement ñëw na aussi c' est important parce que am na ñoo xamante ni rien que pour ñu na leen jox benn envie mën na leen jox benn motivation. Sénégal bëggal ko boppam yéen a ngi seen noonu ah, moom Cheikh Bara na nga xam ne ah, am na benn connexion directe boo xam ne am na ci diggante ah, sénégalais yi ak xam ne rek ak ki xam ne moom mooy Cheikh Bara Ndiaye mi nga xam ne daf koo daal di wóolu ba daal di koy Ousmane Sonko daf koo daal di wóolu ba daal di koy dénk ne wala ba daal investir ci euh, liste bi def ko nag ca euh, 23e bi mais l' essentiel que ça soit bu nekk 23e ou bien mu nekk 24e ak lu mu ca mënti doon l' essentiel mooy que kóolute la ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko am ci ki nga xam ne rek moom mooy Cheikh Bara Ndiaye bu am lépp sant maa ngi koy wax. dara la ne moo tax askanu Sénégal wóolu ko ka ne kat kii mën na dem assemblée nationale mooy xam ne daf koy daal di ci plateau yi waaye tamit la nga ne daf koy daal di àddu mu leer nañu di ci bopp ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu Sénégal kon nag Cheikh Bara Ndiaye ak askanu Sénégal loolu nag du mën na yaa maa leen koy wax mais yéen a koy gisal seen bopp noonu mu nekk daal ne Cheikh Bara am na ak ñi nga ne ñoom ñooy askan wi te loolu la lu ko may mooy dëgg bi nga ne yàgg ko wax askan wi ne askan wi am nañ ko ci te loolu la bépp moo ko daal di liggéey moo tax moom Cheikh Bara Ndiaye tey mu daal di amee euh, bile euh, taxawaay dañuy daal euh, ne kat askan wi moom moo ko wóolu waaye nag askan wi ñoo ko jox daal lii nga xam daal di ci gunge waaye tamit mu ànd ci ak xaritam Cheikh Bara Ndiaye ak ki Euh, voilà ñi nga xam ne ñoom ñooy askan Sénégal ak Diouf Lambaye aussi ñu ngi doon di ko seen euh, ci côté ki nga xam ne moom mooy Cheikh Bara Ndiaye yéen a gis leen xam ne noonu la askan waaye nag di ko tàllal loxo xamal ne di ak yow ba foofu la ci assemblée loolu yi tamit askan ñoom ñoo ko daal te yéen koy seen noonu ci li nga xam ne rek moom mooy caméra kon Cheikh Bara Ndiaye ñoo ak Diouf Lambaye ñu daal di dem gisante ak askanu Sénégal wax ak ñoom li nga xam ne rek moom mooy biir programme voilà comme ni nga ko gisee noonu ci image yi moom Cheikh Bara Ndiaye def gis ak ñi nga xam ni kon ñoom ñoo di leen ci askan bi instant bi nag Euh, ñi ngi noonu euh, euh, vraiment ñi saafonte mu nekk ambiance boo xam ni ñi ngi ko seex entre ñoom en attendant ki nga xam ne mooy Cheikh Bara kon daal rek jël li nga xam ni moom moo di kàddu bi parce que sant bi ñi nga xam ni moom moo di ci Grand Yoff ñi ngi nii di tolloog kon nga xam ni moom moo di ci Grand Yoff cortège bi nag dem bi xaw na yàq parce ñi nga xam ni itam ñoom ñoo askan bi kon euh, euh, génn nañu euh, pour nag daal di saafonte ak ki nga xam ni moom moo di Cheikh Bara Ndiaye gis noonu ak ki xam ni moom moo bi nga xam ni itam gis nañu ko ci wet bi mais itam gis nañu xale yi vraiment ñoom itam daal di nañuy génn xale yi génn nañu pour nag daal teertu li nga xam ni moom moo di caravane bi ak seen ay. voilà Cheikh Bara jërëjëf kontaan nañu euh, gis ngeen itam ñi nga xam ni euh, ñoom ñoo taxaw ci seen buntu kër yi euh, voilà gis nga ñu papa jooju kooku kenn du laajte ndax Pastef lam du Pastef ndax mi ngi yore spécimen bi nga xam ni tey moom la ñu war a xàmmee pour mën a voter parti bi la nga xam ni moom moo di Pastef kon gis ne leen noonu ñi ngi noonu ci cortège bi ñu dox. Euh, destination fan la xamaguñu ko mais ñun daal ñu ngi ci cortège bi jamono bii nii moom Cheikh Bara Ndiaye mi ngi noonu euh, ci oto bi euh, di nuyoo ak saafonte ak ñi nga xam ni ñoom ñooy di askanu Sénégal bi nga xam ni génn nañu bu baax a baax di ko safoo génn nañu di bégee bu baax a baax ki nga xam ni tey moom mooy Cheikh Bara Ndiaye Serigne def gis bi nga xam ni tey moo jiite caravane bile les euh, élites euh, patriotes euh, kon ànd ci ak ñoom Ouzin. voilà Cheikh Bara Ndiaye dugg na Grand Yoff donc Cheikh Bara Ndiaye egg si na am point sànq ba léegi ànd ak musique bu Dakar gis nañu ne caravane bi nag na ay jigéen ay soxna rek ñoom ñoo nga xamante ni moom mooy Cheikh Bara Ndiaye wax naa la Cheikh Bara comme ni ko investir ci liste bi mu nekk titulaire nekk 23e place donc di place boo xamante ne am na solo lool. te jàpp naa ne ku ñu cëral rek euh, moo tax ñu lay def euh, a boobu ndax Ousmane Sonko ci boppam moom moo doon dressé li nga xamante ni moom mooy liste bi donc bu ko tegee si position bi mu ko teg donc y a de quoi en fait mu y a tax mu war a def euh, campagne ndax wax naa la même élection présidentielle gi nga suñu yaay yaa ngi noonu gis nañu parce que nan lañu continuer maintenir ak di am doole bi nga xamante ni mu koy am ba léegi ndax gis ngeen fi ñu romb rek ñu suñu yaay taxaw seen biir kër yor ay spécimen donc euh, di euh, apprécier nga xamante ni moom mooy Cheikh Bara Ndiaye. Bara Ndiaye nag mu nekkee na nekk député li ko parce que tout simplement boobu ñëpp ko bëgg boobu ñëpp ñoo ko apprécier donc voilà moom nga xamante ni voilà affaire yi jeex na ba noppi ñu naan affaire yi jeex na ba noppi ñoom ñu naan affaire yi jeex na ba xam ne ñoom ñooy suñu yaay yi xam ne ñoom ñooy di patriote yi ñu xam ne tey courage et bienvenue pour la réussite du projet. mi ngi noonu di saafoonte ak ñi nga xam euh, ne ñoo yenn ci patriote yi. wala ma sama yaay yi rek ñoom voilà Cheikh Bara Ndiaye ngeen di jàkkaar loolu noonu ci oto bi muy saafoonte ak yenn ci sénégalais yi. ñu defaraat baxane bi ni nga gisee noonu. <laughs> ak drapeau du Sénégal ci loxo bi loolu nag vraiment lu ma marqué la ci ñi nga xam ni ñoom ñoo di euh, patriote yi parce que tey euh, amu ci kenn ko xam ni di nga euh, maanaam fësal sa couleur parti seen i daje li ci ëpp solo tam ci gën a fës mooy drapeau national di Sénégal bi nga xam ni daal moom la ñuy gën a yor. di ko fësal tey loolu la ñu nemmeeku ci Cheikh Bara Ndiaye gis mu jël li nga xam ne moom mooy drapeau national du Sénégal takk ko ci loxo bi li nag li muy firndeel mooy que euh, Sénégal rek Sénégal kese euh, jël Sénégal jiital ko ci lépp loolu euh, jàpp naa ne message bu fort la boo xam ne tey sénégalais yi buñ ko gisee en tout cas nekk jàngat bu am solo ci côté boobu noonu. voilà Cheikh Bara Ndiaye def moom mooy waxtaan ak Saa noonu xam naa nag yoon mi ñu jël xëy moom na xat ndax grand comme ni ma ko waxee dafay faral di xat et puis temps baa ngi dem heure baa ngi dem dañuy njëkkanteeg heure bi ndax ñoom war nañu dem fi nga xamante mooy Sandaga wala ñu dem fi nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy Colobane ko xam ko xam Colobane xam ne heure bi euh, daanaka ñu ngi si wàccaay pour wàcc ñibi seen kër donc mine de rien aussi war nañu noter également euh, li nga xamante ni mooy retard bi si am mais bon c' est ça se comprend d'autant plus que seen Mbaara Ndiaye dafa demoon Gambie et que ak voyage bi dafa xaw a metti mais jàpp nañu xëy na suba mooy gën a teel waaye nag li ngeen mën a jàpp ñu war leen ko wax mooy ñu ngi fii en direct ak suñuy euh, plateforme yu euh, différent donc mooy euh, fii nga xamante ni moom mooy Grand Yoff xam naa du ñàkk bu ñu yëkkati ay kàddu xëy na ci micro central bi daal di wax li nga xamante ni mooy appréciation fii nga xamante ni moom la toll xale yi en attendant ñu déglu suñu jigéen bi aju mu daal di koy mu daal di jottali les jeunes patriotes voilà yëf yi xaw na ni tekk moment bi en attendant euh, ñu xool ba ne itinéraire euh, lañuy ñuy war a rek suivre parce que yëf yi jafe jamono ji dafa mel ne euh, dafa xaw a jaxasoo parce que nit yi génn nañu baax a baax yoon yi xat na nit yi génn moom bu dee moo nar a continuer tey caravane dina yeex lool lool lool moo tax xam naa ni il faut que ñu a trouver nag solution ci biir yi bu ko defee voilà Sonko mi ñëw Cheikh Bara Ndiaye ak ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay leader ñu génn saafonte wax ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy askanu Sénégal et c'est très important li nga xam ne Cheikh Bara Ndiaye mi ngi koy def ak yeneen ci ay candidat aussi ñu ngi koy daal di def micro micro la de micro da ko sori da ka am fulla am na fulla boobu de sama xarit mi ndeyaar moom xoolal lu muy wax wax wax micro micro moom na ko jege micro mi ngi ni ay boo juumee ba micro bi sori ko su ko micro bi sori xool sa loxo bi lay fël da koy damm lu leer laa la xamal loolu <laughs> voilà Cheikh Bara Ndiaye ba léegi mi ngi taxaw donc euh, waa Grand Yoff génn nañ ah, waa musique Grand Yoff génn nañ génn nañ alors euh, accompagné ak seen euh, seen coordinatrice également gis nga moo taxaw noonu Cheikh Bara Ndiaye mi ngi yëkkati loxo waaw daa mel ne Cheikh Bara Ndiaye campagne bi da koo bëgg a yem na Grand Yoff ndax heure baa ngi dem kebe <laughs> taxawaay bi yàgg yàgg na Cheikh Bara taxawaay yàgg na mais nag waa Grand Yoff ñoom ñooy génn jamono ji di wane seen mbégte ak seen contentement. dëgg la voilà. nañu wàcc ci ambiance wala. day waaj a dem boo demee waaw daaw day waaj dem may may yaa booy maa la ziar. spécial pour yéen ñu ngi lay delloo ziar. yaa ngi si jàmm mais maa ngi gis yaa ngi ree yaa ngi kontaan rek. waaw dama kontaan ndax lu ko jar a ko jar ginnaaw yàlla ñu ngi sant di gërëm président Ousmane Sonko ñu ngi gërëm président Ousmane Sonko di gërëm son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye président Ousmane Sonko mi nga xamante ni moo ñu génnee si lëndëm. yóbbuñu ci leer moom mi nga xamante ne mooy ku set ku sell ki di ñaan yàlla suñu borom yàlla na ko yàlla defal ndam